def nañ jaay def nañ dem open press def nañ point de presse. Mhm. légui nak li fi dess moy suba la samedi yalla nañ ko fekke dimanche yalla nañ ko fekke ta tal ko arbitre day souffler lay sen digënde diggante ak machine deug dëgg mën ak machine loolu passé na combat ba neexon waye man a ak Balla bo Tapha ak Balla <laughs> babakar ñaari mbeur yi da nga leen di xol xam ñom ñaar bëgg nañu combat bi mhm. Mhm. muy tafa muy balagay bo xolé balagay mi da ngay xam balagay bi bokkul ak Balla Gaye bi bëri woon les derniers combats yi mu bëree. bii mm-hmm. moom liggéey na. Mm-hmm. liggéey na carrément te bëgg na ko. Mm-hmm. Tapha nag dafa nekk koo xam ne depuis ca Yékini Senior ba léegi. dafay entraîner. mu bëri mu am combat ak mu ñàkk am combat dafay entraîner. parce que li koy wane mooy saa bu ñëwee ci làmb da gis ni Tapha Tine mi dafa am forme. boo leen xoolee seen physique nii da ngay xam ne liggéey nañu physique bi. physique bi mais loolu rek doyul Babacar. loolu doy lan mooy doy pour yow. dafa am quatre wala cinq aspects yu ci nekk. mooy barak bar yooyu mooy première bi mooy réflexe. réflexe. vivacité. endurance. résistance. Mhm. te yooyu mu wax yëpp dafa mën a am ci combat bi bu bu combat bi gaawee. Mhm. kenn ki war a mën a jëw combat bi. Mhm. bu fekkee yow balagay moo ko bëgg def tafatin te tafatin amul si gis ta balagaay lu muy def mm-hmm. am vivacité bu ko ciy gaaw a génne mm-hmm. mën na am problème mm-hmm. bu dee balagay moo ko tafatin moo ko def balagay te loolu kii am ko tamit mën na balagay mën na am problème te combat bi mën na gaaw ko mën na yéex résistance bi fi mu amee njëriñ ak endurance bi mooy combat bi bu yàggee ci la résistance ak endurance bi amee njëriñ ca lay feeñ détermination am fa place tamit. ak mental bu baax. ak mental. waaw. ok bi bari na coow bari na bruit. waaw mais ku ci jël combat bi yenn ko. mën hmm. nga am loolu mën ngaa ñëw na bay bëgg a dee te doo def dara. Hmm. mu daan la. kon combat bi jarut yenu. non lu loo ci yenu ñii yàgg nañu bëre. combat bu ne am nañ ko. Hmm. combat bu ne am nañ ko. waaw Eumeu bala ak Balla bu ko ëpp doole amul. déedéet bari yow métti na. Eumeu Sène ak Tapha ban combat mu ko doole. Mm-hmm. amul te bëri nañu ko mu jeex. Mm-hmm. léegi nag loo jëlee combat bi di ko yenu Tapha warul ne bala daanoon na ma rek damay am pression dama war a fayu de mais booy da ngay xool li nga war a mën a def ba fayu. mais Tapha Tine dama dégg ci ay waxam mu ne mu ne ko daanoon nga ma loolu passé na. waaw mais dafa mel ni dafay doog a bëre ak yow. waaw damaa jàpp ne tey laay doog a bëre ak parce que lu mu yëg ci yaramam la peut-être yaakaar na ne booba ak fi mu toll nii du benn. yow gis nga nag boobaat bii du benn. waaye du benn Babacar man man man même bu ma faralee Tapha tamit damay wax loo xamante ne damay équilibré rek. Mhm. Balla boo xoolee dernière année yi mu génni mhm. performance am baaxul. Mhm. waxante dëgg yaaxul. nañu waxante dëgg rek quoi. Tapha boo xoolee. kat deux mille dix huit ba léegi nii. ñaata combat la fi euh, dafay dafay gagné combat boo xoolee. Euh, combat am ak euh, Modou Lo dafa demoon defar defarwaat ñëwat hmm. waaw lu tax loolu mu defaru ba di xaar ba loolu di ko rëccaat ba muy amaat combat bii di demaat. Hmm. continuité la woon. continuité la woon loolu dafa waroon continué la mu waru woon rëcc. boobu mu andi woon après da ko rëccaat yow gis nga ko gis naa ko ñeneen ñi gis nañ ko. Hmm. léegi nag bu demaatee nii waaw ki nga fekk na dafa jiitu yow ngay dabbe wax dëgg yàlla nag dañu waxante dëgg. mais nag benn côté dégg naa Tapha ñu posé ko question boobu mu ne ko Euh, bu bala bu amee cent soixante dix pour cent mën na daan ku ne. Mhm. dama ci nangu. waaw. Mhm. Balla sax xëy na loolu daa bëri. nee na moom vingt pour cent sax bu ko amee <laughs> nga lu tax Balla ne leen man mi am cent kii am cent pour waaw mais damay nangu loolu fay wax de. Ah, non damay nangu loolu. Mhm. ci kaw combat ba gaaw. ah loolu ay vingt pour cent soixante pour day gaaw pour Balla combat bi day gaaw de mais bu mu diire ñu dem prolongation. waaw. doo ko ca bëgg su ko ci biir cinq minutes dix minutes yu jëkk yi bu nelawoo tuuti Balla mën na ko ci mën na ko ci mën na ko ci nelawal hmm? waaw mën na ko juumloo bu nelawee tuuti ci première minute parce que am na bëre bi hmm. te entraîné na instant bii hmm. nag moo war a bañ bàyyi Balla muy ñëw di bëre ci kawam xam nga Balla damay seetaan bu ko ëma sen daanee mu ne daan na ma waaye maa ko man <laughs> lool noo ko déggee. ama daa xam nu muy bëreek moom te moom xamul nu muy bëreek ama. ama xam ni muy bëreek. ama balla bu ñu doon bëre fii ba suba te balla bàyyiwu nu muy bëreek ama ama da koy daan ak ak euh, ama ak xam nu muy bëreek balla gay. ok ama saa buy bëreek balla bu ko balla gëdee day def benn ci ginnaaw. bu balla attaque forcé mu dajeek moom. Ah. bu ñu dóorante ama lii dafa gàtt. Hmm. Balla da koy ñuuxata bu saa buy dóor day sëgal bopp ba pare yéeg ci kaw mhm. day touché Balla mhm. Balla loxoom day rom même bu dalee du am yenn impact yi te Eumeu da ci yem net parce que miskul kuur la loxo bi dafa gàtt mhm. ba pare teel ko profito Balla ko bàyyi mu gëdd la nga taxaw gis nga bu ñëwee bu la fekkee mën na la ah, def lu la naqari mais am na am na lu koy défendre loolu waaw waaye nag dañoo nekk ci combat du ma wax secret kenn di yàq kii mais en tout cas am na benn mbër bu ko réussir mais bala mujjee xam nga rek. Ah. waaw ci départ bi dana bëreet kooku dóor ko are ba mu xaw a déséquilibré mais ba mu tëbee suuf attaque mbër boobu noonu. liir leen combat yi fi jaar rek. xam naa combat. <laughs> <laughs> Euh, c'est que lamb Babacar mbër yëpp mën a bëre mais mbër bu ne dafa war a am noo war a bëreek moom stratégie booy bëreek moom pour andil ko problème mhm. ku ne da nga am fort am faiblesse ku ne da nga am fort am faiblesse fort jàmbur nag nii bu ma defee nii nii laa koy def mu bañ la ko def moo gën a wóor ku la koy def du la tàggu mën na laa bet <laughs> balaa ngay lijjanti mu def la ko demee wallaay dëgg la de donc combat la boo xam ne daal mhm. ah combat bu doy waar la de ñoom ñaar ñu ku ne mën a daan sa morom Tapha daal bu mu basé wu ci ne sama année yi ma passé maa gën a baax performance maa mën su mënee tamit na xam ni muy mën a waaji de maanaam boo manee dangay xam ni ngay mën ni ngay mën a waaji waaw mais euh, dama seetlu si ñoom ñaar dem seen point de presse ak open presse yi mhm. Balla dafa préféré relaxé ci parce que laaj naa ko ko sax débardeur la sol mhm. kilote boo xam ne comme ku ne sa biir kër mhm. xam nga tafaa moom